sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a safoo Equivox TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree rek wopp ba coronavirus mi ngi wéyal rek ab yoonam fii ci Sénégal tey ci 2331 test yi ñu réalisé rek 273 ñoo ci jot positif ci 273 yooyu nag ñuy am 127 cas contact 245 cas communautaire ak 7 yoo xam ne rek dañ cee daal di faatu ak 265 yoo xam ne rek faj nañ leen ba ñu wër ba tey rek ñuy des ci wopp ba coronavirus moom nag mi ngi euh, def ab jéey rek ci école yi ci noonu nag euh, jëwri ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ngënk lépp lu dem ci wàllum njàng meeg njàngale bi daal dinañu jël ab ndogal nege ni démb li nga xam ne nag moo di gontu ya nga xam ne rek élèves yi daan nañ ko gontu ci école ya muy euh, ci talaata bi jàpp alxames bi rek dañ ko daal di dakkal rek ba jëmmi jamono ci noonu tamit liggéey bi rek dana ekk di door ci altine bi jàpp alxames 8h14 arjuma bi ñu koy door dooree rek 8 jàpp 13 heures. sukkandikoo rek ci euh, communiqué boo xam ne rek jot nañ ko société bi di Sen'Eau lañ xam ne rek moo di ndox dina ñàkk ci samedi bi ñuy waaj dugg ci région de Dakar ak banlieue Thiès jàpp Rufisque li waral bile mbir nag moo di aw tiwo boo xam ne rek dañ koy defar. ba tey rek ñuy wéyal xibaar yi ci Equivox TV plateforme bi di Multilutte doy na ànd ceeg ONG Jamra daal dinañ amal rek ab point de presse nege ni démb lañu xam ne nag moo di dinañ amal ab doxub ñaxtu le 10 février jëmale ko nag fële ca lekk lañ ca jublu nag moo di wax ak njiit ba nga xam ne rek moo jiite boobule société ngir rek xeex injustice bi nga xam ne rek nekk na ci boobule société. ñu daal di àddu rek wax ci kii di Ousmane Sonko nekk président PASTEF moom nag ab benn massage rek. moo ko daal di euh, porter plainte li waral bi le mbir nag moo di da ko accuser rek li nga xam ne euh, moo di viol ak menace de mort xale bu jigéen ba nag euh, ba ko enquêteurs yi laajee rek lam xamle moo di Ousmane Sonko daf doon ñëw rek ci centre boobu rek di fa maase wu waaye nag la muy mujjee rek moo dul neex maanaam Ousmane Sonko da ko doon sàkku du suñuy kàddu kàddu le écoles la waaye nag kii di Ousmane Sonko moom la mu lee rek moo di laalewul benn yoon ci boobule mbir sax nag bay jot plainte ñu koy tojee rek génnub àdduna sëriñ Moustapha Jamil si nekkoon nag doom ci sëñ Mansour si borom daara ji moom nag génn na àdduna rek ne ni démb ci alxames bi fële ca hôpital principal bu Dakar ci feebar boo xam ne rek da ko tëral lu yàggul dara kii di eh, sëriñ Moustapha Jamil si nag dinañ ko denc rek ca sëkk ya ca Tiwaawoon noonu rek group Equivox yëpp ñu ngi koy eh, jaalee mbokkam di ko ñaanal rek fu mu jëm eh, gënal ko fii mu jóge jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur Equivox TV fi la ñuy daal di yem ak yéen rek ci xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah.